yéen soxna mus la ñu war a ndokkeel ñun kat ak man mii soxna mus la ñu war a ndokkeel ndax ndax man damaa woote moom de daa woote di magam di magi soxna musli mu wuy si soxna musli wuy si woote boo xam ni woote boo xam ni noo ko bokk ñoo ko bokk ndax li may woote ndax sëñ bi ne li muy woote ëppalewu moo ko ci ëppalewu ci soxna musli noo ci yem ñoo ci yem mooy mooy Cheikh Ibra Serif Assane Serif Assane Fall mooy way juram mooy way juru soxna musli Cheikh Ibrahima way juram Cheikh Ibra mooy way juram Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Fall mooy sama way jur mooy way juru Serigne Mbacke Fall Cheikh Ibrahima way juram Cheikh Ibra mooy way juram ñu bokk astu silla ñu bokk nag soxna astu silla kon Serigne Mbacke mu ni kon Cheikh Ibra Cheikh Ibra noo ci yem ñoo ci yem may magam rek da nek magam rek oh, di ñam di ñam ndax lool la def sama digënté ak mom ndax lool la soxna musul def digam ak mom def nako ngir limay magam def nako ngir limay magam def nako itam ngir kilifteef def nako itam ngir kilifteef ndax ay kilifam ndax ay kilifam di sama kilifa di ay kilifa yi seigne mbacke ñoko fab ñoo fab soxna musli denk mako denk ko seigne mbacké mu xamni kon moo xam ni kon. ci sama ci sama kër. ci këram. di këram sax. di këram. Euh, kilifa ko fa yóbbu. kilifa moo ko fa yóbbu. moo ko booleek man. moo ko booleeg sëñ Mbàkke. mu war a doxale nag. mu war a doxale nag. ngërëm ndigal ndigal ndigal loolu nag ndigal loolu mu war a doxee nag mi ngi koy dox mi ngi koy dox bu wér ma dee leen ko seedeel sëriñ baa ngi leen koy seedeel sëriñ Asis sëriñ bi nee na seen mag booy leen yëlif muy sëriñ Asis xam naa ni fonk na ko xam na ni fonk na soxna musli sunu mag seen mag di sëñ Amdi di sëñ Amdi Asan Assane xam naa ne fonk na ko xam naa ne fonk na ko kon nag kon nag am ngeen kilifa gu mat kilifa am ngeen kilifa gu mat kilifa ngeen góorgóorlu rek rek ngeen ko jàppale bu a baax ngeen ko jàppale bu baax a baax waaye ñu koy ñaanal yàlla sëriñ bi nee ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla gën koo dëgëral yàlla gën koo dëgëral ba li muy liggéey moom itam ba li muy liggéey moom itam ci kër maamam ci kër maamam mu gën koo man rek mu gën koo man gën koo mën a ànd ak yéen gën koo mën a ànd ak yéen ci daraje Cheikh Ibra Fall ci daraje Cheikh Ibrahima Fall sama xol sedd na sëriñ bi ne xolam sedd na waaw loolu rek mooy mooy gàttal gi nag nee na loolu mooy gàttal gi nag jataay bi nag sax sëriñ bi nee na bi sax nag lii ma wax lii mu wax moom la sunu mag jii di seede moo ne magam jii dend moom ci wetam moom lay seede moom soxna daba mii moom soxna daba mii xam ni xam ni damaa woote rek ñu ñëw sëriñ woote rek ñu ñëw waaye jataay bii kat waaye jataay bii fii ñu toog nii fii ñu toog nii ci salle moom mii mooy kilifa gi moom mii soxna Daba mooy kilifa gi ndax mooy sunu mag ndax nee na mooy seen mag ëppale wuñu ko ci Cheikh Ibra ëppale wuñu ko ci Cheikh Ibra sëñ Modou Mbenda way juram sëñ Modou Mbenda mooy way juram Cheikh Ibra way jur sëñ Cheikh Ibra way jur Cheikh Modou Mbenda noonu rek la demee sëñ bi ne noonu rek la demee muy ku baax moom itam muy ku baax moom itam musta tàngam la bis bi musta tàngam la bis bi xam na ni bisa ba xam na ni bis bi bisam la damaa woote rek sëñ bi moom daa woote rek organiser leen rek organiser leen rek waaye nag waaye nag sant naa yàlla sant na yàlla sant leen sant leen ba ngeen xamee ni ba ngeen xamee ni li ma woote. li mu woote. Euh, bugeen ngeen sañoon ci ndam. bu ngeen sañoon moom mi ko woote mu am ci ndam. moo leen tax a ñëw. moo leen tax a ñëw. def ci li ngeen ci war a def def ci war a kon nag ñoo ngi leen di sant. bi ne kon mi leen di sant. di leen ñaanal baax a baax di leen baax a baax. la ilaha faala soxna Faama Diaw soxna Faama ñoo ngi lay nuyu sëriñ bi ne mi ngi lay nuyu waat waaw yaag ñi nga àndal yaag ñi nga àndal yéen sox soxna si sëriñ bi mu ne yéen fu ma ne fu ne fu mu nekk fu ne fekk ngeen ma fa fekk ngeen ko fa ah Touba nee li nu li murit gën a am fi murit gën a am muy Touba li gën a yitteel murit li gën a yitteel murit te mooy màggalu Touba te kenn ku ne am bëgg am aw gan kenn ku nekk bëgg am aw gan ba dalal leen ba dalal leen yeen yeen man ngeen di daloo mom ngeen di daloo yeen yeen man ngeen di nekkal magal yépp mom ngeen di nekkal magal ga yépp loolu di reuy ci man lolou nek lu reuy ci mom auto ngeen di jele fi ngeen ne auto ngeen di jele ci dakaru dakaru ci dakaru ñew fekk si mom ñew fekk ko mbacke lolou yàgg na ndax sama kër. nee na ndax këram. defe naa ren. defe naa ren. mooy ñaar fukkeelu at. mooy ñaar fukkeelu at. mu fay màggal. mu fay màggal. waaye defe naa. waaye nee na defe na ni. bu fekkee am na bu ngeen ci mës a rëccile. bu fekkente ne am na bu ngeen ci mës a rëcci. bariwul nee moom de xam na ni bariwul. kon loolu. sox soxna si sëriñ bi mu ni kon loolu. loolu loolu loolu kóllëre la. ak mbaax la. ak mbaax la. fonk ma itam la. fonk sëriñ bi itam la. kon nag loolu. kon nag loolu. mënuñu koo fay. sëriñ bi ne mënu koo fay. bis bi nga xam ni itam. sëriñ bi mu ni bis bi nga xam ne itam. Cheikh Ibra lañ ko wooteel. Cheikh Ibra lañ ko wooteel. yàlla dimbali ma. yàlla dimbali ko. ba ma woote ko fii. ba mu woote ko fii. te ku woote ku ne. te ku woote ku ne. boo sañan. boo sañoon nit ñi wuy si. nit bu nit ñi wuy see itam. bu nit ñi wuy see itam. boo sañan. boo sañoon. Ah, nga nga leen. nga teral leen. nee na yéen. Eh, wuy si ngéen wuy si ngeen. di andi seen teraanga nag. indi nag ay teraanga yu doy. yu doy doy doy. kon bëgg ngeen bis bi. kon bëgg ngeen bis bi. Mm, na ma ko bëgge ni mu ko bëggee. mu mel noonu. mu mel noonu. yàlla dimbali na ma. yàlla dimbali na ko. ba yi weesu. ba yi weesu. na ma ko daan bëggee. na ma ko daan bëggee. na la mel. na la ñu mel. te kenn ëppalewu leen ci. te yàlla na ko ko dof defal. sëriñ bi mu ni yàlla nag moom ku ko defal. Mm. war ngaa jàpp ni. war ngaa jàpp su dee lu baax la. moom dana la lu baax. moom yàlla dina bu dee nag safaan ba sax. bu ko neexee mu baal la. waaye boo defee lu baax moom. waaye boo defee lu baax yàlla moom dana la moom. moom yàgg fi te wér barke sëñ Touba eggaleel naal bi ci barke sëñ Modou Moustapha amin Fall yàgg fi te mucc ak muccule mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ak mbokki diaspora yi murit yi nga xam ne ñoo ngi lu ko commencé ci Europe ba Amérique gi nga xam ne fa la ñuy dund ah, damaa ñëw ah, sant ba noppi ma nekkal leen fi waral def seenu cant ñoom ci seen wàllu bopp ndax lépp loo xam ne ñoo ngi koy liggéeyal Sëñ Tuubaa fee ca Amérique ñun ñoo koy bokk moom mii nga xamee ne mooy suñu kilifa ci yoonu Cheikh Rafal di jëwriñ ji ñoom Ibrahima Sëñaan nga xam ne un million wakkaana axan buñ koy def daaw moom mii moo ko teewee ba pare moo ko tëj ñoo ngi sant di gërëm di ñaan la nga xamante ne moom lañ nekk di ci liggéeyal sëñ Touba yàlla bu ñu fuuy yàlla bu ñu yëg suñu bopp yàlla ñu yàlla defal gudd fan ko ànd ak wér jox ñu addiyee ju ñuy liggéey sëñ Touba ak Cheikh Fall Fall ñoo lay sant di la gërëm di la ñaanal. Serigne Mbacke nag day sunu wàll noonu waa Kër Cheikh kon bis bii. waa Kër Cheikh fonk dañ ko waaye dañ koy gën a fonk ndax ba mu koy tàmbali melul nii waaye waxoon naa ko ne lu mu gën a ñëw day gën a kawe rek ndax sa maama sa maama ko liggéey te Kër Cheikh dina ko gis. rax te dolli la maamam sama baay Jibri Kan bëggoon ba ne dan Cheikh Rafaal te bi Ibrahima lépp ci sëñ Mbàkke mi lañ ko lañ ko gisee kon sëñ sëñ Mbàkke mi sunu sunu cëre ñaari yoon kon nun dañ koy jàpp te duñ ci dellu ginnaaw. dañuy ñaan ci barkeb sëñ mu Fall mi nga xam ne ku dégg li sëñ lu wax ci moom sëñ Modou mu Fall kenn melul ni moom kon dañuy ñaan ci barkeb sëñ mu rek Moustapha rek sëñ Mbàkke yàgg fi te lépp lu mu ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb Cheikh Ibrahima maamam jërëjëf Fall Ndiaga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha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 kër Alaaji woon ko defal. kër Alaaji Ahmad Baro nga ko defal. ndax yu bari. nee ndax yu bari. dama wax ni sama tànk yi. nee dafa wax ni tànkam yii mu fi ñëw tey. li ma li ko waral lépp. li ko waral lépp. xajul ci toogaay bi. xajul ci benn jotaay bii ñu ne. waaye mën nañoo indi nag. waaye mën nañoo indi nag. li ko gën a li ko gën a dëgëral. li ko waral moo di. li ko waral mooy. moom mii maamam. moom sëriñ bi maamam. maam buubu joor di maam alxaaji buubu joor ja ja ak soo baay ak baayam benn lañu woon benn lañu woon sunu way juru jigéen it ne seen way juru jigéen ba muy dem got ba muy dem got maam buubu joor maam buubu joor ci ñi ko alaaji Ahmad Baro dénkoon la ci ñi ko alaaji Ahmad Baro dénkoon la mu digaale ak sunu baay. mu digaale ak seen baay. waaye loolu lépp nag. nee waaye loolu lépp nag. dañu koo feeñal rek. dañu koo feeñal rek. ci njarbaat gi ci moom. ci njarbaat gi dox ci moom. ci ñun. jëm ci ñoom. waaye rakk nag. ne waaye teewul nag sa rakk ndax maam maam Cheikh. ne ndax maam Cheikh. ba ko yàlla indee ba ko yàlla indee cees. booba. booba. mu ngi wàcc fii. mi ngi wàcc fii. ci góor gi Mor Lo. ci góor gi ba Alhaaji Mor Lo. nag. nee waaye nag. mook Alaaji Baro. mook Alaaji Ahmad Baro. ñu laxasoo ay goj. ñu laxasoo ay goj. kenn ku ne. nee kenn ku ne. bëggoo lu yàlla. bëggoo lu dul yàlla. doxaloo yàlla. doxaloo lu yàlla. kóllëre googu. nee kóllëre googu. tax suñu maam Cheikh Ibrahima Fall. ku masaan ku masaan gane àdduna. ku masaane gane àdduna. ci jamono yooyu. ci jamono yooyu. ci kër Cheikh. ci kër Cheikh gii. dañuy ne dañuy woowi. Maam Alaaji Ahmat Baro. mu ne ko tudd ko. mu ne ko tudd ko. bari na. nee bari na. ci ay doomam. ci ay doomam. ñu maase. ñu maase. ak doomu El Hadj Baro. ak doomu El Hadj Ahmad Baro Njëgët yi. ku fi koo. nee ku masa bàyyi koo. maam Cheikh dafa maam Cheikh Ibrahima Fall daraan wax naan. woo leen El Hadj Baro. bu ñëwee. nee bu ñëwee. mu jullee mu ne ko jullee ko. buy sëgi texe yi. nee sëgi texe yi. naa guy texe. ñu naan guy texe. Alaaji Ahmad Baro. mam Ahmad Baro. maam Seyna bu Njaay. maam Seyna bu Njaay. ويجر مام شيخ ابراهيم فال موم لا فا نديك جولي ني سول كوفا مام شيخ مام شيخ نلا احمد بارو لو خام في لو خام في مونيكو ييويتام مونيكو ييويتام لو خام في لو خام في مام شيخ تين ني مام شيخ ابراهيم فال تين دادي كوني دادي كوني لما في خام لما في خام كوني في دوغال ني كوني في دوغال بالا نيو سول بالا نيو سول غادم الجنه غادم الجنه لولو وارال ني لولو وارال تودي ñu tudd armeel yi guy texe waaye nag nee waaye nag loolu lépp. loolu lépp. maam Cheikh di ko doxal. maam Cheikh Ibrahim Fall di ko doxal. allah alaaji Ahmad Baru di ko doxal. alaaji Ahmad Baru Njëgeen di ko doxal. këram yii. nee këram yii. ci yoo ci yoonu police. ci yoonu police. nee foofu nga xam ni moom la ñuy woowee kër portugais si léegi. muy tabax yooyu sës ci sëg muy tabax yooyu Cheikh di liggéey. nee bi ko Cheikh di liggéey. bu ñu yenoo añ yi. bu ñu yenoo añ yi. jëlee genn wal ga day wàcc ne booba Alaaji Ahmad Baro mi ngi liggéey bâtiment tiwil boobu ci buntu kër gi ne bu añi ñëwee genn wal gi ñu wàcce ko kër Alaaji Ahmad Baro genn waal gi dem fekki liggéeyu maam Cheikh ma Fall kon boobu diggante. ne kon defar ko. defar ko. moo gën moo gën. jéem koo tilimal jéem koo tilimal. waaye loolu lépp nag. ne waaye loolu lépp nag. sëriñ Mbacke mii. sëriñ mii. way juram wu baax wa. way wu baax wa. Moustapha Fall. di sëriñ Modou Moustapha Fall. nga xam ni. nga xam ni. moo nekk. moo Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ibrahima Lamp. ñëwee. ne bamu mu fu baayam tegoon tànk. fu baayam tegoon tànkam. na fa ñetti tànk. moom teg na fa ñetti tànk. fii. mais fii. ba taaxi kaw. ba taaxi ba jëm noonu. ba ca kaw. bari nañu fi dëkk. bari nañu leen ko. jaayuñu leen ko. defuñu dara. defuñu dañ leen rëdd rek. ñu dëkk ñu dëkk. loolu nag. mais loolu nag. Cheikh Modou Moustapha la. la de. du maam Cheikh. mais loolu maam Cheikh bàyyiwu ko fi. Cheikh Modou Moustapha. Cheikh Modou Moustapha Fall moo ko fi def. Cheikh Modou Moustapha. ne Cheikh Modou Moustapha. nekk ci dëkk bi nekk ci dëkk bi. di def lu rafet di def lu rafet. ba Alaaji man Njëgën. ba Alaaji jumaa ji. ni man dey. ni man dey. jumaa ji. jumaa ji. bala ma koo liggéey. bala danaa dem. danaa ci sama mag gi. ci sama mag gi. waxtaan ak moom. ba mu ñëwee. ba mu ñëwee. mu ngi fekk. mi ngi fekk. maam Cheikh. maam Cheikh. taal ci këram. ci këram. mooy kër gële. mooy kër ca kaw. ba mu ñëwee. nee ba mu ñëwee. mu ne mu ne ko. ba mu ñëwee. nee ba mu ñëwee. Cheikh Modou Moustapha. Cheikh Modou Moustapha. la fekk. la fekk. ci këram gii ci këram gii. mu nuyoon teeg moom. nee mu yoon moom. fekk mu ngi jaar. fekk mi ngi jaar. baay ci baay jibi kan. moom la àndal. nee moom la àndal keroog. ak mag nga ca des. ñëw ni ko. nee ñëw ni ko. mag sama. mag sama. dama bëgg liggéey juma. damaa bëgg a liggéey juma. ñëw nag. ñëw nag. di ci waxtaan ak yow. di ci waxtaan ak yow. di wutit nag. di wutit. ndimbal. ndimbal. saayir. ndimbal. ndimbal. ak baatin. maam Cheikh Modou Moustapha. ne maam Cheikh Modou Moustapha. ni ko ni ko. léppay am léppay am. léppay am léppay am. lañ ca mën a wax. ca mën a wax. sama nijaay daal nee na ma. nee nijaay balaaji Moodu nettali ko ci làmmiñam. ba mu dugalee loxoom. nee ba mu dugalee loxoom. jëflanteeg moom. jëflanteeg moom. sama nee na. nee alaaji Moodu nee. yu bari. yu bari. ci lañ ko jënd. ci lañ ko jënd. def ci jumaa ji mu daal ne. nee mu daal ni ne. Eh, eh, eh, ana Cheikh Jibi Kan. Kan. Jibril Kan. Jibril ne nee mu ne ko faal. mu ne ko. mu jumaa jooji. lu ci di suuf. lu ci di suuf benn taalibe bu tariixa tiijaan bu mu ko fa sotti nee na ngeen ko sotti tibbi leen suuf si nee ñuy tibbi suuf si kë ca kër Sayib sikkar ah, si nii xale yi see ànd ak sëriñ bi nee noonu la daan nekke ñu koy def benn lox 34 waaw booba 44. nee booba 44 la. ñu benn lox. ñu def benn lox. di sikar rek. di sikar rek. yenu. nee yenu. góor ñi. góor ñi. jigéen ñi. jigéen ñi. ñëpp. ñëpp. koo gis. koo gis. mi ngi yenu. mi ngi yenu. suuf. jëlee ko kër Seyib. jëlee ko kër Seyib. indi ko jumaay kër Mamalaye. indi ko jumaay kër Mamalaye ci ndigal Serigne Modou Moustapha. dañ koy jal nee dañu koy jal di jal suuf sa di jal suuf sa di jal suuf sa nee kàdd ga fa nekkoon dañu koo jal dañu koo jal ba muur ko ba muur kàdd gafa fa nekkoon nee su soosee la ñu liggéeyee jumaa ji ba ni jumaa yi àgge wutuñu suuf wutuñu dara ne tund yi ngeen gis ci jumaay kenoom alxaaji te kenn mënu koo dindi lu dul mbaar mi ne suuf soosee moo fa nekkoon ne tasaare nañ ca génne nañ ci waaye suuf sa nekk fa rek kóllëre googu. ne kóllëre googu. <coughs> moom la Cheikh Modou Moustapha. moom la Cheikh Modou Moustapha Mbak euh, Fall. mi mi jul alhaaji mi. mi jul jëflante. ak kër Mamalaaji. Ahmad Baro Njegen. waaye li muy rafet rafet. ne waaye li muy rafet rafet. moom mii toog tey. am na lu di wax. am na lu di wax. moom nag du du moom nag du bee. bee la dañu ne. dañu ni. xaleel bu loxoom setee. bu loxoom setee. mu mën a bokk ak ki mag. mu mën a bokk ki mag. waaye moom. waaye moom mii. dafa départ. dafa ak mag. ak mag. àndandoo. àndandoo. ànd ak loxo bu set. nekk na fii. nekk na fii. di jàngi. di jàngi. ca ca jaxaaw. ca ak di ñëw. ak di ñëw. ak kenn mësul a gis. kenn mësul a gis. kenn mësul a gis. kenn mësul a gis. sëriñ ak jigéen. ànd ak jigéen. wala muy dox. doxin woo xam ne doxin woo xam buy wii doxin. rafetul. jayu ko de. nee jayu ko de. mag laa. nee moom mag la. du du ne eskay. te waaruwul. yàlla dogal. li yàlla dogal. ci dënnam ci dënnam. wàllu xam-xam ci wàllu xam-xam. doxewu ko doxewu ko. nee da koo jëfe rek. tey la gën a woyof. tey la gën a woyof. ñu bari ci ñoom. ñu bari ci ñoom. ci seen wàll gi ci seen wàll gii. heure yooya. heure yooya. dem bitim réew. fukk bu dem bitim réew. juróom-ñeent ya. bala ñoo ñëw. yàqu. waaye moom waaye moom. Cheikh Ibra. Cheikh Ibra. moo demoon bitim réew. moo demoon bitim réew. moo dellu si. ci réew mi. ci réew mi. fanaan fanaan. doomu. ku tedd ku baax ku makki. fanaan fanaan. ca néeg ba. allahu akbar. nee loolu duma ko def. nee sa maam yow loolu la def. nee bu dee ñun nag. dañu koy tiitaroo. dañu koy tiitaroo. waaye maam Cheikh. waaye maam Cheikh. ëllëgee bu ëllëgee. amulee bu amulee. ci xaadimul Mustafa bu ca amulee bu ca amulee. dara kenn ku topp. ne kenn ku topp. waliyu waliyu. mbaa saxaaba doo am ca ka nga topp. dara asalaamualeykum. di am mbégte ci dajawaat ak yéen. di am mbégte ci dajawaat ak yéen. ci bis bii. ci bis bii. di nuyu sama nijaay. di nuyu di nuyu nijaayam ji toog. alhaaji xalifa gay alhaaji sëriñ xalifa gay di boroom xam-xam di borom xam-xam di ku baax di ku baax di ku sell di ku sell taqoo taqoo di jarbaat sax di jarbaat sax ci kër kër sunu maam sunu maam Amadou Baro Njegéen maam Ahmadou Baro Njegéen sama nijaay noo ngi lay nuyu sëriñ xalifa sëñ Mbàkke mu ne mi ngi lay nuyu noo ngi lay siyaare bu baax a baax bu baax du ma guddal sax ci wax ji sëriñ bi nee na du guddal sax ci wax ji dama lay sant rek dafa lay sant rek di len ndokkeel ci bis bi di len ndokkeel ci bis bi ndax sa bisa ndax bis bi sa bis la ndax bis mom. serigne bi muni bis mom bu fekente ni bu fekente ni bu bu bu awo yon bu awé aw yon nga bég nga bég bu af safaan ba amé bu safaan ba amé nga am lula nakari nga am lula nakari bis bobu sa bis bis bobu sa bis la te yow non nga ci démé te yow serigne khalifa non nga ci démé dañ la wotel rek dañ la wotel rek waye li nga sédé fi légui waye serigne bi bu ya digënté seeni maam alhaji amadou baru. amadou baro baru kan? ak cheikh ibrahima fall ak cheikh ibrahima fall ak digënté sunu wayjur ya digënté seen wayjur alhaji modou njëgen alhaji modou njëgen ak serigne mustapha fall ak ci ak jaxasoo ci ak jaxasoo ci xam ni ñoo bokk euh, diine ji xam ni ñoo bokk diine ñoo bokk njaboot gi ñoo bokk njaboot gi li nga ci seede li nga ci seede doy na sëkk sëriñ bi mu ne doy na sëkk ñii ñëw sëriñ bi mu ne ñii ñëw di ànd ak ñun euh, maggal gi di ànd ak sëriñ bi màggal gi di moom euh, télévision Lamp Fall ñii télévision Lamp Fall ñii taxaw doon nañu wax doon nañu wax ñoom ci seen bopp. bëgg am ku leen waxal lu mel nii. bëgg am ku leen waxal ci sëñ Mouhamadou Moustapha Fall lu mel nii. foofu yàlla indi la. foofu nag yow xalifa yàlla indi kon li ñu bëggoon. kon ñoom ñii li ñu bëggoon. xam ko ci dëkk bi. xam ko ci dëkk xam ko ci dëkk bi. xam ko ci njaboot gi. xam ko ci njaboot ak taalibe Cheikh Ibrahima ak taalibe fii. yow wax nga ko. yow de sëñ xalifa wax nga ko. kon ñoom. sëriñ bi mu ne kon ñoom ñii. jox nga leen leçon bu rëy. jox nga leen leçon bu rëy. te yaakaar naa ni. te yaakaar nañu ni. ku dégg. ku ko dégg. sa wax ji. sa wax ji. dina xam ni. di nga xam ni. Eh, nii la kilifa yi diine yi war a. ànd nii la kilifa yi diine yi war a ànd. lii la nit ñi soxla. lii la nit ñi soxla. taalibe yi lii lañ soxla. taalibe yi lii lañ soxla. te buñ ko amee rek. te buñ ko amee rek. ñu noppal leen. ñu noppal leen. loolu kon. kon Serigne Khalifa Serigne yow joxe nga fi dars bu rëy. yow joxe nga fi jàngale mu rëy. moo xam ni. moo xam ni ñëpp mën nañ cee jëriñ. ñëpp mën nañ cee jëriñ am naa yaakaar ni. naa yaakaar ni danañ ci jëriñ itam. danañ ci jëriñ waaw ñoo ngi lay sant bu baax. jërëjëf Guèye sëñ bi mi ngi lay sant jërëjëf samay ay uh, ay kilifa. nee na dafa am ay kilifa am ñu sant Mbacke yu fi ne. ñu fi ñëw ñu fi ñëw. sëñ Massamba Mbacke. sëriñ Massamba Mbacke. moom sëñ Moustapha Ceytu. moom sëñ Moustapha Ceytu. moom maam Cheikh Anta. moom maam Cheikh Anta. mi ngi nii. mi ngi nii toog di soog a agsi. di soog a agsi. sëñ Fallou Fall. sëriñ Fallou Fall. mu sëñ Assane Mati Baal. mu sëriñ Assane Mati Baal. itam mi ngi nii. moom itam mi ngi nii toog. agsi na agsi na. Mbacke Mbacke. Mbacke Paa ñaar ñaar ñaar. sëriñ bi mu ñaan. yaa ngi ñaan. subhaana rabbika rabbil izzati wasalaamu wasalaamu wasalaamu wasalaamu ngeen jëf mbokk yi kon ñi ngi fii ci Thiès ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ni Serigne Mbacke Fall ibnu Serigne Modou Moustapha Fall moo koy defal maam Cheikh Ibrahima Fall eh, xam ngeen niñ leen ko waxee woon danañ ñëw ànd ko ak eh, mboolem eh, mbokki taalibe yi nga xam ñoo fi nekk ànd ko ak sëriñ bi ci noonu ci la délégation yi di dugg si ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, délégation bi ñu toogal nag moo bàyyi ko ci kër Serigne Bachirou Fall Alxuraan muy kër Serigne Mbacke moom maam Cheikh Ibrahima Fall euh, mu yàble fi euh, ñu fas yéene rek jox kàddu kenn ci kilifa yi nga xamante ne bi ñoo fi teew ku ci mel ne Serigne Modou Fall moom Serigne Bachirou Fall Alxuraan waaye sëriñ Modou Fall euh, moom sëriñ Bachir Fall Alxuraan ba tey sëriñ Modou Xayra moom la ñuy jox sax na kaddu fal, gi euh, sëriñ Abdou Aziz Fall ak euh, sëriñ Moustapha Fall ñoom ñoo fi teew ñu fas yéene jox kaddu nag ñu yëkkati kaddu yoo xam dañ koy jëmale ci bis bi rek ak yónneen yi nga xam ne sëriñ bi yónnee na leen ko ci rakkam taalibeem muy sëriñ Mbacke Fall moom sëriñ Modou Moustapha Fall xam ngeen ne ñu bokk kër maam Cheikh Ibrahima Fall tey ci bis bi ñu di ko taxaw fii ci Thiès sëñ bi kon. sëriñ Mamour ñoo ngi leen di siyaare bu baax te di leen sant te di leen gërëm di jot li nuyoob sëriñ bi ndax sëriñ Bassirou fa alquran ay ndawam lañ moo ñu fi yónni tey ji ñu ñëwoon fi man ak sëriñ Modou amin Fall di doomam ak sëñ Abdou Assis Fall moom sëriñ badar moom sëñ badar Mbacke Fall di doomam ak sëriñ Moustapha Fall. moom sëriñ Cheikh Soda di ab sëtam ñu ànd ñëwoon ci bis bii ñu ñëwoon fi mu yëndoon ci sëñ Mbàkke Fall kon bu ñu fi ñëwee day doon loo loolu dafa war ndax diggante sëñ Mbàkke Fall ak sëñ Basiiru Fall Alxuraan day lu yàgg ndax sëñ Mbàkke leeral nañu ko léegi ndax xamal nañu bu fekkoon waajuram mi ngi fi tey ji sëñ Mbàkke Fall kon foofee ca daaraam jooje la nekk féete fa kër sëñ Mourou Moustapha nag dama caa bokk loolu leeral nañu ko sëñ Seex ji mooy sama mooy sama lépp waaye ni sëñ Seydou bu nekkee sama mag ma am cër ci sañ sëñ Seydou noonu laa ko amee ci sañ bas daan nañu ne bu ngeen demee na ngeen xam loolu yéen ñii di ay xale ndax it sëñ Mbàkke Fall lañ ma tuddee ndax dañ daan ne ma soxna Njóoba ñoo bokk benn nday di rakk sëñ Bassirou Fall Alxuraan kon lépp ci kër gi ci benn la sëriñ bi nag mu ngi sant sëriñ Mbàkke Fall bu baax di koy jot li am nuyoom ngeen jot li ñu am nuyoo bu baax ndax sëriñ bi mi ngi koy sant bu baax ci ab taxawaayam ci kër Seex Ibra ndax neena seigne sëñ dako ñor lol lepp lo xamne ni mom nek na ci seigne Mbàkke nga ci lepp ba ci guddik gi gi sa bu koy def lepp lu mi def rek seigne Mbàkke nga ci taxaw kon momit seigne sëñ dako jappé rakam jàppee eh, eh, rakkam ji mu bokkal moom waaye sëñ ci bop momit di mu jappé ko sëriñam ndax ko kep ko xamne nek nga ci keur cheikh rafal seigne bassi Bassirou Fall alxuraan ngay ngay magam wala ngay rakam ab sëriñam la la jappé ndax momit it cheikh rafal rek moko ñor lepp lu mu am rafal rek moko ñor kon dal serigne Mamour lol dal moy kaddu ñu ci am ñu ci séré ndax serigne mi ngi sant serigne Mbacke Fall bu baax jël nuyoo bi di ci jital serigne Sidi Maxtar Mbacke mi yagi fi and ko wër nak non tam ñu ci tek serigne Sidi Jëmm Fall mi yagi fi and ko wër di ñaanal serigne basir Fall xaar mi nga xamni mo ñu fi yabal moy mi yagi fi loolu and ko wër xana dañuy gàttal rek ndax serigne Modou Fall mo wax na lépp te bu waxee waruñu si teg benn baat waye day lo xam da mu ta ñak rek mo tax ñu jëfé ko ñu jóge woon fi na andon na serigne Modou ak sëñ Abdou Aziz Fall ibnu sëñ Bara Fall ak sëñ Moustapha Fall doomu sëriñ Cheikh Soore di doomu sëñ bi muy setam ñu yebaloon ñu fii ci bisub sëriñ Mbacke Fall bi comme ni ko sëñ Moodu waxee ndax sëñ Mbacke Fall kat kenn ko xam ku ne ku nekk yàgg ngaa dégg diggante mag sëñ Basiir Fall Xuraan ndax li mu Moodu wax rek moo ci am ah xëy na ñun lañ ko xam sax bëriwul waaye man bii mooy sama ñaari yoon ma teew fi ndax njëkkoon naa fee ñëw ànd fi sëñ bi nga xam ne biñ fi ñëwee mi ngi daloon ci kër gi ñu taxaloon ndax waaw sàmm xëy sekk maa ngi koy wax suñu Modou Fall jamono boobu lañ doon intégré monument bi nekkoon fii nii kon loolee noonu tamit yàgg na maa teew sëñ bi di ci nii waaw bu ñu fi ñëwee tamit dañ fi ànd ak suñu Modou sëñ bi ndax màggal gi nga xam ne ni ku nekk fan naa xam ne bis bisu Seera Fall la te ñun ñëpp njabootu Cheikh Ibrahima Fall la kon bu suñ mbàkki xewlee ñu fi loolu suñu Modou wax loolu war na ndax it day am loo xam ne si tamit su amee dafa war ndax tamit Euh, sëñ bi nga xam ne si mooy sëñ Moussa Fall alxuraan moom léppam day di Cheikh Ibrahima Fall ba pare ñu jël suñu mbàkk dippé ko euh, bàyyi sëñ Moussa alxuraan kon bu ci yeblee loolu war na ndax tamit guddi Cheikh Fall gi ni mu ci taxawee kenn ku nekk xamee euh, gise na ko noonu xanaa nag maanaam day nekk loo xam ne kay wax ji maanaam munta bari sax waaye dañ ciy tënk rek xanaa di ñaanal ñëpp rek wasalaam jërë ngeen jëf la ilaha la ci yàlla rabbana ilaha illallah Cherifou Fall Aidara borom daaru bayra lii lépp yawa Cherifou Fall Aidara Fall naar bi yaa moom Kawsara la ilaha illallah rabbana la ilaha illallah la ilaha illallah Fall Mustafa la ilaha illallah la ilaha illa allah faal Mustafa la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah Sëriñ Mbàkke ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Sëriñ Tuubaa sant maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Muridiina beral cant ak gërëm nag ñaan way juróom bi nga xamante ni moko ko boole ci lii mooy Cheikh Modou Moustapha Ba radiyallahu taala anhu dafa tolloo bis bi daf koo def mi bis ba Serigne Touba woote woon waxoon ca Magalu Touba dina ngeen ñëw santale ma sunu borom waaye moom guddeeg bëccëg mu ngi sant way juróom Cheikh Modou Moustapha ak wéy juróom bu baax la soxna Ndeye Ka waaye mu tàmm benn bis nag ci at mi woote ko bernde ci bégle ci ay kilifaam aku njabootam ak ki bokkam ñëpp wuy ko ak xarit yeeg wëllëre yi yow santale ko way juróom woowu di Cheikh Modou Moustapha ci bis bi jàppale ci sëñ Mbàkke ci biir ak ci biti ñooñu ñag ñoo tudd taalibe sëñ Mbàkke toog fi di lim matu ko tàmbalee ka ca jëkk ba ca ka mujj tudd nañu ñëpp sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp sëriñ Mbàkke nee alaaka yaa xillu Cheikh Ibra mu ni ko alaaka kawe nga yaa xillu yow Ibrahima Fall alaaka yaa xillu ndax lu tax man bil amsi arshada da qalbin salimin ki gindi woon démb Cheikh na Ibrahima maam Ibrahima alayhi ba mu dem ci boromam إذ قال له ربه أسلم قال له أسلمت لرب العالمين كجني ونكوك مو جني إبراهيم فال منيوت شيخ القديم نكو أسلمت لرب العالمين موتا إذ قال له ربه أسلم يو إبرافال دفا جفنكو بات بني وخون مام إبراهيم عليه السلام نيوت سن بامبا نكو أسلمت لوجهك جوخ شيخ الخديم بوبوم بامو جيختاك تاك موتاه مونيكو اعلاك يا خلو من بالامس ارشد ذا قلب سليم كدي واجو وعجوجي برم خول بويرب برم خول بسطبة نخبو اللي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب مجبو أبو شيخ إبراهيم أمون موكو قتش يبكو شيخ الخديم مجوكو بابم موتاه مونيكو أرشد ذا قلب سليم وإيه سعى إليه مبتدئ إذ قال له ربه أسلم قمت مرتحلا yaa bind siraajun muniir te mooy lamp buy leeral di Ibra Faal nga wax te siraajun kafaana allahu dawman bi nuurihi dalaalan wa tuxyaanan wa aaran bi minnati mu indi la Ibra Faal bu mat sëkk indi la Cheikhul Xadim bu mat sëkk indi la Seydina Muhammad bu mat sëkk boo jëlee way sëñ Mbàkke yooyu foo ko mën di yóbbu nga peese ko wasnu bi mu kéemaan lool ñu naan déet mu indiwaat beneen boo xam ni daf koo célébrer nag Cheikh Ibrahima Fall wax ni jadduna Ibrahim am na fu mu ko naan ca wa qulita asma wisaamin baata yanshuduhu ahlu riyadati fii sawmin wa fii sahari kon góor yàlla yi li ñuy reye seen bopp di daw di dugg fu ne ci Cheikh Ibrahima Fall la gën a gaawee mu ni ko qulita asma wisaamin baata yanshuduhu ahlu riyadati fii sahrin wa fii sahari loolu ba ngay ñëw ci Ibrahima Fall ñu yëkkati ko jox la muy Fathul Mubin ku ko bëgg da ñëw ci Ibrahima Fall. région de Thiès li mu dajale benn région dajalewu ko daa am Pire am Tiwaawan am Njaasaan am Canaba am Kër Maam Alaaji am ñetti penc Cheikh Ibra am pëpp ngim sax suñ ma lu ma nekkam xabbaan sëñ Saalu nekk got région de Thiès li mu dajale benn région dajale wu ko

sëñ Moursa Mbacke sëñ Fallou sëñ Abdoulaat sëñ Abdou Khadre sëñ Saliou sëñ Moursa Fall sëñ Mortala Fall sëñ Ablaye Fall Ndar sëñ Fesen sëñ Abdou Sakkoor sëñ Modou Amin sa sëñ Cheikh Jëmb Alaaji Baari sëñ Sidi Muxtaar loo ci man mbokki taalibe yi waa kër Xaadimal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu nu sàbbalee sunu boroom subhanahu wa taala julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon niñ ko baaxoo def ñi ngi yëkkati suñu loxo ca kaw ci lu amul benn complex di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba كيف كنا ما يدف لولنا لعبيد ربه وابن شيخه دان وخسرين عبد الأحد بوليس قر نغا يكتي بنين لخو بيغا ني جراو جراو لك شيخ ابراهيم فال كيب كوي نيت سبب فيتي كو سي تانك فيتي سوف te kenn mënta yëgg ci yàlla te jaaroo ci baatu laa ilaha illallah boo bëggee lu yomb dangay leeral sa xol yëkkati sa loxo nga ne jaraw lakka Cheikh Ibrahima Fall jataayu tey bii nag day jataay boo xam ne boo fi toogee rek danga gën a gis da gën a yëg yërmaande Cheikh Ibra ci bindeef yi te ki nga xam ne mooy léppam ci zahir ak ci batin muy sëriñ Touba moom yërmande ja dafa ëppoon ba kenn mënu ko xayma dëggal bi muy plaider pour l'humanité bi muy ñaanal jaam ñi kenn du dem sawara mel ni avocat jàkkaarlook jàkkaarloog boroomam di plaider l'humanité wa najjihim wa aafihim waltuf bihim ولا تواقثهم لكثر ذنبهم وإنهم لئن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد كما بريان ماني بنيو متى دي بموي سخ نغا خمني متى دي كيب موتخ نيو موي لواي سين خولي بوكو خالي يالا رك نتي جيس كن نتي نيوم ورنتي ولد te lu adduna yàgg-yàgg matadi katee leen jàpp waaye qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaaka min huna ila gada kooku mooy borom yërmande kooku nag la Cheikh Ibra toog ci kaw suuf yore yërmande moo waral jataay bi ñu teew sanq ba léegi boo ko xoolee rek gis ci yërmande Cheikh yal na yàlla yokk leeroom baatinam yal na ko yàlla sotti ci njaboot gi sëñ Bakke nag dama mëtatut ci moom seere ndax sama mag la sama xarit la waaye li tubaab di wax daal sama idoon la li sëriñ Basiru doon jàng léegi muy xasida gi nga xam ne leeral na lu bari ci kumpa gi nit ñi am ci maamum jooju di kenn muy aarif bu mag bi muy Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baab Mouridina Cheikh Ibrahima nag la ca gën a yéeme ba tax kenn du ko natt ci téere yi mi ci téere yi de waaye du ci téere yi lépp nga mën a tiim téere bi gis ko li la yàlla gisloo rek ngay gis li la yàlla déggloo rek ngay dégg ba ma liiree xasida sëriñ Mbàkke googu mu tàmbalee ca siraajun kafanallahu dawman بنوره ضلالا وطغيانا وعارا بمنته وخما نبوت مام دون وقت الشيخ ابراهيم واي فصحى اك منطق اك بلاغه بمو ريسبكت تي دوينا كيم تانو بروم خام خام waxantuma laa nag la yàlla dëxëñ ca azal nga xam ne ku soobut Serigne Touba du ko xam nga ñëw di ko décrire ba nit ñu ñàkk solo ba mel ne man war a xam dimension Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina kon sëñ Mbacké wolof dañoo wax ne boo nawee nit dëgg-dëgg ko bëggee wax la nga xam ci moom lu baax lépp amaana bu ko cat jàppee yow la kon lañu xam ci moom lu baax lépp dañ koy soppee ak ñaan di ko ñaanal li sa maam liggéey Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Mouridina bu la ci benn jullit ëppale fi nga yéene yeggale liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall bi yàlla na ko fa eggale ci barkeb Serigne Touba Serigne Sidi Mokhtar Mbacké dafa bëgg jullit yépp ànd doon benn ndax dañuy faral di wax ne bala nga doon murit wala tiijaan wala xaadir walla leneen danga doon muslim ba noppi muslim nag charte yi xamees na ko nañ nawloonte Sidi Muxtaar mii de bërki démb ci kasu rajab gi bi ñu dajee tuubaa ñoo bokk reeran euh, añandoo kër sëriñ maam Cheikh maam Cheikh Mbay bu sëriñ Fallu dox ba tàkkusaan mu ñëw ñu termine ma ne ko maa ngi noppalu ji léegi laa koy laaj ne ko kon bi ñu fa tàggoo nga noppalu ji mu ne ma booba tàmbaleegu ma nga xam lii muy doxal fii noonu lay doxale Touba noonu lay doxale Tiwaawan noonu lay doxale fépp jullit nag fii ak jàppoo ne li nga bëggal sa bopp nga bëggal sa morom yonent bi nee na sa jullit matut kon bu fekkente ne nag Sëriñ Touba daa woote kennal yàlla ba am ci mo boroomam loo xam ne sëriñ sëpp ñëw nañ taxaw ne ko ay la yeween Moodu Mbàkke ay la yeween amut morom wolof moo ne ay la mais ay du mos a yeween buñ ne ay la rek loolu ñàkk pexe la kon ñëpp d'accord nañ ne amul moroom mais lan la defoon ba amul moroom te di nelaw ba fajar non je suis désolé dafa def lu kenn deful la sëñ Moussa doon wax ne ko euh, sëñ Massamba Diarra Mbaye wala sëñ Mbaye Jaxate yaa tëb jaar fu kenn jaarut ba ñëpp ne moo fi daan hmm? sëñ Touba moo teggi tur bi daw ba sar ni ko sëñ Moussa di wax waaye xañut kenn ku baax ci réew mi ab cëram bu ngeen xoolee sampub Cheikh Ibra fii ci bërëb bi ñu nekk ci diggante yu xat yi nga xam ne ay kàngam kese ku séq waaye diggante ba rattax lool kon mbokk yi dama sëñut ñu jox ma kàddu gi ma delloo ko waaye kàngam yi fi teew mate nañ lépp dama doon ubbi di nuyu ñëpp mbokk yi sëñ tubaab ma nga xam ne nii moo doon plaider pour l'humanité lam yéene ci askan wi ci lu baax lépp yal na ko yàlla sotti ci njaboot gi képp koo xam ne jëmmal nga bisu Cheikh Ibrahima bi yàlla bu la ci kenn ëppale kon daal wax ji mu gudd mu gàtt lenn képp la dégg naan béy euh, pël boo ko laajee danaan la benn kàddu rekk la xam mooy naga baax mm-hmm. naga baax boo ko doon laaj ba suba ñaari baat yu mu wax ne la nag a baax kon daal man it fii ba suba su ma doon wax am ma kàddu gu ëpp jërëjëf sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullah. xam nga kan mooy Cheikh Ibrahima maam see rafaal xorom la ci yoonu mu di xorom ku feebar nag ba docteur aay la xorom da ngay bees sa cin waaye bul sikkal xorom. nag daa jóge jolof ceeb jóge Pakistan ndox jóge Lac de Guiers tamaate jóge Maroc diwlin jóge Sonacos ni bu den jëli soble xorom ni maanaam jalañ cib dëkk ñu lu bu ne dinaa ko fekk doon tukki dem marché dooma limaa la xorom maam seera faalay xorom ku feebar nag ba doo ko aayar xorom da bët si cin waaye bul sikkal xorom xam nga lu tax nga neex ma ñeenti gaaf yi sëriñ dalu la sëriñ ñeenti gaaf la am ñàkk njariñ ñàkk xam-xam ñàkk yërmande ak ragal sëriñ bu ñàkk njariñ te mënoo tee mu yuusu nattu yeesu ko sëriñ bu ñàkk xam-xam boo gindi ko bàyyi ko mu ni sama taal ba daa war te fekk moo xamul dara sëriñ bu ñàkk yërmande boo dof dof loo ba dugg ci loo mënul fee laa toog nag ndax daa bari man man fekk moo sëriñ mu ragal nag moom ci ay xël ngeen di dëkk ndax buur day xëble dépasse di xëble àddina te xëble sëriñ ñett la tay ma dip serigne force nga dip serigne akup serigne tay ma dip serigne moy ñi nga rob ci mbéj ñi yor ay bëjñal ak laar di wor kokoy tay ma dip serigne force nga dip serigne serigne ñukoy jur way bu juddo day ak ndigal ba baye faatu ñu wor ko bëgg suñu ko kay tok mu ni janguma ñun ko force parce que mag mom la bu toge da koy soppi nguur bu ko soppi nguur talibé yef ko def ko peronum ginar ab serigne day jang xam xam jang xamé di diglé yalla diglé diko def di télé tété diko ba loloy serigne mi ngi melni ak dakar ak dakar Ndëkkëru mooy Kër Mbène Fall Kër Massar Dakar mooy Pikine Poste Thiaroye Dakar mooy Almadies Nord Foire ko di ma Ndëkkëru la ñoom Njaga Njaay ko yóbbu ko di ma damay dem Dakar sept place moo ko yóbbu ko di ñoom Dakar Pajoro koy sëñ Abdou Samad yaay Dakar lii moom programme am dëgg la woon ndax tey bés bii da ko boole ci bés yi mu gën a fonk yàlla nag nit ki da ngay sawlu yàlla mooy dogal moo tax tey ñu ñëw fii représenté ko di gërëm sëriñ bi ndax sëriñ bi it yàlla boole na ma ak ci kóllëre ndax nguur yi moom boole woon moom avant may nekk maire amul bés bii fuñ ko mos a taxawale te taxawuma ak yitte bu mën a am naa ko bàyyi ñëw taxaw ci bés bi loolu nag yàlla moo koy dogal ndax nit teew day neex yàlla su neexul yàlla doo teew yàlla nag moo may boole toujours ci bés bi ba mu fi nekkee ba tey maa ngi ñëw ci bés bi di ko gërëm di ko sant di gërëm it Sidi Sidi sama sëriñ la ndax sama papaam moo doon sama papa sëriñu papa Talla la mi ngi lay gërëm di la sant di la xamal ne li mu waxoon ak li mu tàllaloon loxo ci yow yëpp amul dara lu mu ci bàyyi amul dara lu mu ci fàtte di la indil nag nuyoo waa Cees yëpp di ñaan yàlla yàlla may la fanu gudd may la wér ni taala nekkee sa taala noonu laa nekkee sa Lamine Sankharé loo soxla su nguuru ñëwee ne ma lii la soxla incha allah dinaa ko dox te léegi sëñ Mor wax na la ko taala ne soko fekul lu ngeen soxla su ngeen diggé ci man inshallah yalla mo def ne dana soti di gërëm ñëpp di sant ñëpp ngeen gën ko ñaanal jappalé ko bu baaxa baaxa baax ndax limu yëre ci Thiès bëss bu ko yalla maye ah wa Thiès dañu xam taala liggéey na fi di gërëm ñëpp di sant ñëpp neena mo tax day nuyo rek soxna je neena bi fi toké neena ñaari biir la fi fekk talibé yi bay fali di sikkar naan laa ilaha illallah nee mi ngi naan sëñ Mbàkke buñ ko àndee mbooloo mi ànd ko naan laa ilaha illallah nee na xam-xam toll ak noo gàtt gàtt xam-xam nee na loolu ci sa biir xol ndax nee na Baay yi bu ñu leen di wax Baye Fall daa am ko waral nee dugg la ci biir sax waaye li ñu mën a dégg foo leen fekk ñu ngi tudd di sàbbaal sunu borom naan laa ilaaha illallah nee laa ilaaha illallah nag nit ku koy wax du ko yàgg a wax da dem ba mu ba mu dëggu ci salaam nee na su la ko salaamee day dugg ci sa biir xol bu duggee sa biir xol day doon deret di daw ci sa biir yaram bu boobaa ci ngay doog a yëg ni doon nga Baay Faal nee na boo fa yégul moto goo Baay Faal ndax njariñ la mooy bu yeggee ba doon deret bay daw sa biir yaram sa làmmiñ woowu. nee sa làmmiñ woowu. rus naa waxatu lu ñaaw. rus naa waxatu lu ñaaw. cër yi cër yi eh, deret yiy daw. nee cër yi deret yiy daw. rus naa jëfati lu bon. rus nañoo jëfati lu bon. lu ñuy tere du ko jëf. lu ñuy tere du ko jëf. kon boo fa yëgul. nga xam ne nekkoo koo bàyyi faat. ndax laa ilaaha illallah. bu la defarul. leneen mun laa defar. nee na bi ci topp. sëñ Basiru Alxuraan. mu ngi jàng alxuraan muy loo xam ni ñëpp nee nañu képp ku koy jàng di ko jàngale yaa gën ci doomu aadama yi nee na foofu dañ koo gàttal nag waaye yëgul foofu rek nee na alxuraan ki koy jàng di ko jàngale di ko jëfe kenn gënul nee na donte na yonent bee sama deret yonent bi ne ci yow ngay jàng alxuraan di ko jàngale di ko jëfe neen kenn mënatu laa kon nag neen ñaar yooyu rek lañ fi dégg nii muy sikar naan laa ilaha illallah ak jàng alxuraan nee barab boobu nag fu mu ne faaw barke wàcc te te ni ko sëñ bi waxee loolu rek lislaam lislaam génnu lool te dañ ni bërëb bu nitu yàllaa nga fa nga fay door a ñëw barab boo musta dem fekk fa nitu yàlla xamante fa koo xamuloon fekk fa nitu yàlla loo fa ñaan yàlla nangu te loolu dañe na ci barab bi kon nag nañ am yaakaar bu baax a baax te xam ni lépp lu fi ñaan yàlla dana ko nangu te sëñ Mbàkke Fall nee na sànq li mu naan alxuraan ki koy jàngale di ko jàng di ko jëfe kenn gënu la loolu lañ gis ci moom jëfam doo gis mukk mu jëf lu koy yedde mus ko dégg it sa bu mu def lu baax rek lay def te ñu ngi jokk mbokk te lu xew ci këru diine yi ma nga cay def ne nee na moom moom bis la am nee na mos a leen gàmmu jaasaan rek te guddi gi moo koy bokk ak moom ba bët set te muy ñëw day ànd ak soxnaam ànd ak njabootam kon kii mënu koo fay suba la guddi maam buuj gan nga fees dell këram waaye ñimewu la bañ a teew fii nee tax mu ni ko nee na alaaji Idrissa Gueye wax ji muy wax sax dana ko jaaxal ndax moom mos a wax fenn jërëjëf waaye lii nee na lii dana jaaxal ku ne. nee na ma ko waxoon bàyyi ma dikkee ca canaba rek. fa nit ñoo xam ne. ay nitu yàlla lañu. ndax nitu yàlla. ni ko sëñ Abdou Samad waxee. yàlla bu fekkoon ma nga màkka ca Madina fa yonent ba ne ñu xam ne fa ne bu déwénee te it sëñ mii ñaata lu baax la toogal kon lu mu fi ñaan yàlla suñu borom nangu te am nañ ci yaakaar bu baax yàlla nañ ko def na nga di déwén def ko ay déwén yu bare bari te rafet fekk neen ku fi ñëwit yàlla na suñu borom fekk sa aju ci biir ak ci biti bi jaay Seydou Diop. asalaamaaleykum wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokki jot yi fi teew yëpp di jiital ci nuyo bi Serigne Mbacke Fall. bi Serigne Sidi Makhtar Kunta yëkkatee kàddu la suñu kàddu yëpp dugg ndax maag moom a ànd ñëw te suñu kàddu ni mu ko waxe du ñaar benn la. waaye sëriñ Mbàkke yaa toll noonu dëgg dëgg nangu nañu yaay Cheikh Ibra dëgg dëgg nangu nañu yaay babul muridina te baabul muridina dafay dellu ci waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraxu tey dëggu na ni am nga garaat googu ku gis sa jataay bii ni mu tedde ak ni muy yiwe ak ni ko yàlla nase ak li nga fi dajale xam ni jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa am na lum la ci abal euh, rafetal nga ci ñépp rafetal nga ci lislaam bi yépp rafetal nga ci ni këru diine yépp moo tax ñépp wuy si la te sëriñ Mbacke li sëriñ si di wax laay dëggal euh, sa jikko dafa feeñ ci sa melokaan amul kenn kuy dend ak yow te du yaraat boppam amul kenn kuy jëflanteeg yow te du jàngaat kon fa tabaarakallahu yàlla na nga yàgg a taxawee lii ñun dey jataay yi ñuy xaar bari na lool yàlla xam na ko waaye koo xamul noo koy def ni mu la defa tax sa jëf ci ñun ak sa teraanga ci ñun moo yaatu di rëy di rëy ba duñu xam nu ñu koy bayee moo tax ñu jënd la ñépp toog fi ngir rekk jéem a bay waar wi nga xam ni moom nga ñu lebal te xam naa du màtt kon nag fa tabaarakallaahu bégal nga tarixa yëpp bégal nga lislaam bi yëpp bégal nga sa maam bégal nga ki muy liggéeyal muy Serigne Touba ndax gis naa ku baax ba tey gisuma ku dab Serigne Mbacke ci jikko ak ci jëfandiku te fees dell ba noppi ni tekk te feesa ko tax ni tekk diisa ko tax ni tekk wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na kon mi ngi sant ñëpp nee di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah nee mi ngi nuyu Serigne Mbacké di ko sant nag bu baax di ko sant nag sant bu baax mm, di ko ñaanal yàlla di ko yàlla sàmm ko yal guddalu fanam te guddal aw fanam sa bàyyi ko comme xelam bàyyi ko comme xelam nii Serigne Modou Biram waxee nee nii ma waxee léegi noonu rek la deme waaye bis bii nag. nee bis bii. dañu cee am ay cër. dañu am ay cër. cër yu bari lool. cër yu bari lool. muy lislaam bi nu bokk. nee bokk. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. bokk gi nu yàlla boole. nee bokk gi nu yàlla boole. ak kóllëre gi. ak kóllëre gi. sëñ Pa moom sëñ Mor mi nga xam ne. nee sëñ Mor Kane mi nga xam ne. maa ngi yow koo seq. ko bokk ci wàllu ak bokk. ak pas-pas. yàlla boole nu. yàlla eh, naa sax. nee rus na. nga ñàkk maa gis. nga ñàkk koo gis fii. ci place bi. Eh, waaye rus naa it. sëñ Mor Kane mi. sëñ ne fi ba dem. te gisewul ak ndax xam naa fi mu ko toll. nee xam na fi jëkk nag. nee kàddu yi fi jëkk. mooy sunuy kaddu ci saayir ci saayir ci baatin ndax ndax wax su jógee fa mu war a jóge fa jógee fa nam fa war a jógee su duggee ci xol su jaaree ci nopp ci xol la jëm te kaddu yi fi génn nee noonu la mel nee noonu man nag sant naa lool nee moom euh, maa ngi bokk yu àndal. ndax bu kenn ku ne ñibbi woon. nee euh, maa ngi way ànd. nooy ànd. noo yéene ànd. noo noo noo ànd njabi. yéene ànd njabi Fall. fekk fa maam Cheikh Ibra. nee fekk fa maam Cheikh Ibra. fekk fa maam Cheikh Thiénaba. fekk fa maam Cheikh Thiénaba. loolu moom lu wóor la. nee loolu lu wóor la. sunu nijaay jur la. nee sunu nijaay moo la jur. su fekkoon mbooloo mi dafay ñëw. nee su fekkoon mbooloo mi dafay ñëw. yëkkate ay kaddu. yëkkate ay kaddu. wax lu mel nii. wax lu mel nii. te xol yi gëmuñu ko. te ko. dana métti ci ñun. dana métti ci ñun. bu waaye ci ñun. waaye ni nga mel. nii nga mel. noonu rek la wax. kon nu ngi lay gërëm ci melokaan wi. ci melokaan wi. waaye nooy gërëm ñi ko seede. ñi ko seede. yal na guddal soo. ci biir ak ci biti. maa ngi nuyu sunu mbokki Baay Faal yëpp. Eh, Euh, tabaarakallaahu an bokk lépp xam ngeen euh, maam Cheikh Ibra maam Cheikh Ibra ci kër ci ci maam Sëñ Touba ba si njabi sama maam Demba Kuna maam moo jël sama maam moo jël maamam Amar Fall Amar Fall sama maam jël boole koog moom ñu dem Ndaay Ndaay liggéey fa seen liggéey ba. liggéey fa seen liggéey ba. ba liggéey ba mat. ñu ànd ak moom. ba mu dekk. ba mu dekk. mu daal di ni. kaay dem kër Serigne Thiénaba. kaay dem kër sa mbokk. mooy toppal Cheikh Ibrahima loolu démb la woon du tey lépp di benn kon nag li nu war mooy lépp benn yow nag noonu nga dunde noonu nga jàpp maa ngi gërëm fi jëkk yëkkati kàddu di leen sant di gërëm sama bokk yi nga xam ne noo noo bokk lépp ànd bis bi ànd bis bi euh, euh, nu cër bu rëy ndax li am ci yow la am ci yow waaye ba nuy départ ca njax dugg na Cees na Cees dinu xaar ba nu ñëw ngir bëgg ànd ak ñun jooju teraanga nag su la ko sab na wala defalee te bu ko defuloon du ko wàññi dara nga war koo gërëm war koo sant Serigne Diop jër jaajëf Serigne Diop Diop rek Serigne bi nee ngeen xëyee ba tey. ba yéen a ngi topp ci nun yéen a sagal. di suturaal. waaye nag. waaye nag pay. amuñu pay waaye yàlla am na ko. yàlla yàlla fay leen. maa ngi sant bu di gërëm. mujj fi du ngóora. du fit du daraja. ci dogalu suñu borom la. kon jaadu na man ma tankam lu ndax li ma ñew di téwé mënon nako baña def ndax man kat yaakar na ni fuma taxaw tay ken tuma fa waye nak dama koy sante sama borom tawaraka taala mi nga xamni momako jaglél jaglel ña tax may tok fi kolere tax makoy wad doli damay fedd kolere ak ñama andalon tay ñu bayyi ma fi waye fi njabot gi njabot gogu nak la mënul setan ba lu ci way yëngul rek ma fekke ko Fi dafa def ne yalla fi def lo xamni ni bëgg naa ñu bari xam loolu quartier keur Cheikh bi tudd nañu ko quartier waye keur la ndax keur gi dafa am borom keur Cheikh Ibra Fall la wax ci sëtu Cheikh Ibra Fall yore ko andi ko ki talibé Cheikh Ibra Fall yëpp ak bolem ku fi yeewoo ci kàddu bobu ngay wéy man nak dund na ko te xamna li fi Nek. xam-xammee dafa am solo bii ma nekkee fii it kër bu war ci kër Cheikh te jëm si kii waa kër Cheikh Ibra Fall dinaa ko def man ba ma ko yoree di ko def def naa ko sëñ Mbàkke mii way juróom ci boppam moo ko jox dëkk bi nit ku ñuul dafa tàmm toppee ba dafa ni wërti jiitu ñoo ne ca kanam Moustapha bu mu weex la sol du génn bi muy génn si Touba war a xëy dem tool sol bu mu ñuul kukk mooy sun der bii leer Moustapha Madina la duggee Touba tëj fël la koy gas jënax a ko xam Touba la génnee nit ñi ku ci jàng ba mokkal tey ragaloo yàlla jaamuwoo yàlla amoo xam-xam am nit kat nga yàlla ne na ma ragal ma xamal leen ku jàng ragal jaamu sa ruu sell nga tëdd guddu guddi ñu wax la ne xew nit yi taxu da xam-xam de xam-xam ruugu sell la koy maye sa maam kenn tolluwul ni moom Cheikh Omar Fouti yu kenn tolluwul ni moom maa jaam xam-xam Cheikh Omar Fouti yu ku ko ëpp newul fii moo tëdd ba guddi yàlla wax ko ne ko rasulullahi dina ñëw fii ci réew mi astafirullah dina ñëw mbàkke lay feeñ mu xeeb waa mbàkke dox ba makka di seen leer gi tëdd ba guddi yàlla wax yu waal ko ni ko waxuma la makka mbàkke laa la wax mu ñëw ba mbàkke ba wal dugg ci kër maami sëñ bamba joxe fa ab téere wax ni bu sëñ tubaa ñëwee na ngeen ma ko joxal dina ñëw sëñ bi ganewul àdduna ñu leen ci téere bi ba sëñ tubaa gane àdduna ñun ni ko Cheikh Omar Fouti moo la fi joxoon téere bii sëñ Tuubaa jëlub téeréem denc di dem di dem ba baayam nelaw sëñ bi war a doon yonente bi fa bagage yi liggéey ko Cheikh Rafaal ne dara ni waajaa ngii kii dina ñëw ak ki ne agsi na ku leen ëpp bët Moussa Kane balaa mi sëñ Bamba kuy wàlli wàlli nga maa ja ni ku wàlliwul doo wàlliyu nit ci sare yi am xam-xam yépp di jaamu yàlla ci seen biir xol ku ciy wàlliyu sëñ Bamba ca ne man nga koo bañ man nga koo bañ a manifester wala bu ndee ay ministre sëñ Bamba ay amul benn ministre bu xamul président lii ma lay wax ñu mën ci ku ne wala yi yëpp bu ndee ay ministre sëñ Bamba ay seen kon na mu ministre di xam kala na ne Cheikh Ibrahima buñ ko waxtaane woon kenn dootu sonn ponkal mu tolli moom ñëw di ni guutuut ak sëñ Bamba ni biddiw xanaa xam nga réew mi balaa masa tàkk xam nga kon lu koy taal maa moom yaa may moom du tax a xuloo bi ko Seex la waxee sëñ Tuubaa la jàmm xew te boolib kër sëñ Bamba boo gis palaatu kër Seex Faal la koy ub sëñ Moodu Musaa Mbàkke sëñ Moodu Faal sëñ Moo Taala Faal moo yóbbu sëñ Fallou sëñ Basirou Cheikh Assane Fall amul benn doomu sëñ Bamba bu gane àdduna di booli Cheikh Fall indiwul indiwul palaat ba ko yóbbu booli nag bu defee te palaat ubbu ko bu ngelawee mu xajam sëñ Cheikh Mbacke Cheikh Fall bàyyi góor sëñ Mbacke Madina Cheikh Mouhamadou Falilou Fall sëñ Moustapha Basirou sëñ Amdi Khadi bu nu kenn rey xam nañ li te ragal ragal du jam guy de billahi du ñuy jaam du ñuy dag ay taalibe lañu ku nu wan melaw sëriñ ñu sëkk ci di naan ni naguy naan ci ku nu wan leneen ñu yeewu maslaak yow bu jàll jotee ñu jàll sëñ Cheikh Mbacké maa ngi lay siyaar ba ma la bëggee yàgg na man dan maa dimbali de bàkkuwuma damaa sant sama baay dafa dee ci Cheikh Ibrahima Fall amal wërsëg rëyu fit وين علوي توب سا باي بان گرم كو سما ندي با سرين مكي مي موم سيرن محمد المصطفى موم مام شيخ ابراهيم فال لامب باب المريدين كي شيخ الله نقي الله تقي الله عالم الله ورع الله سرين مكي مي توك mboolem ñi mu bokkal askan wi toog mboolem doomi daara yi jóge fi xam nañu ni seyxul la xam na ni naqiyul la ku set la loo yaru yaru boo toogee moom xoolaat sa bopp te loo wax wax mu xam loo xamul ca la ngay wax te du ca boole benn bruit wax yomb na waaye wax ak koo xam ne wax xam na ko te xam nga lu indi coow li ci rewmi jàng ta amo kilifa yaral xafaaya bi ayni al xalbi ko deg muy wax ba weddi lolo mag ñi su pare la mu ne képp la la jebi lo amul njit amul ci rewmi ta dama wax ni rang gi rang jëm Touba toppal ci rang gi wala nga noppi ci rang gi ndax rang du yàqu lu jiitu rang gi di rang borom rang gi defar na rang gi ba rang gi di rang ida katabtu ihtaza arshul baaqi wa sabahati malaikuti baaqi ngeen baal ma nañu gëm mag ñi lu waay yor na jël ba ëllëg kenn ku ne fa nga tukk fa nga sukk na la doy boo ñëwee ci Serigne Mbacké mii ni ko aslamtu nafsi duy caaxaan du caaxaan dafa am mouvement yu jóg na ci àdduna bi man ñooñu laa amal affaire dama dem Londres benn waay di ma dawalal ku ñuy wax xaadim ñaar fukki fan ci weeru koor bi maam Cheikh Ibrahima Fall di seg Serigne Touba ñu woo ma di ma ko waxtaan loo ma dem di ko waxtaan ku ñuy wax Serigne Fallou Seck ma commencé ñu commencé rek ngeen baal ma daanu yu bëri benn waaye jóg tekki montaram joxe ko muy Serigne Fallou ba mu joxee mbooleem ko fa di ñëpp mu tekki montre ya ma xaw a nuru jaaykatu montre ma ne leen lii su ma ko jaaree ay déport dañ naan damay jaay yi montre mu ne ma yaa tudd Serigne Touba yaa tudd maam Cheikh ba boo ko tuddee rek ñu jëflante ak yow am na koo xam ni dina ñëw bu wax ba weddiloo ñu sunu pas-pas. mu ne ma ñiy tafu pas-pas yi dañoo ñëw ci réew mi kon dimbali leen ñu ngeen wax ñu mag ñi man nag sama gis-gis Idrissa Gay ab tijaan laa tiwaawan laa bokk xadaratul maalikiya sër Cheikh Hadj Ahmad laa waaye li ma gëm mooy défendre bindu mag ñi man lii laa gëm ñeme naa ci débat bu de mën naa ci jàkkaarloo ku de la nga am indil ma indi li ma am. noo ngi siyaare. sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yu mu yàgg fi loolu te wér di siyaare ki nga xam ne bu ëllëgee lu mu amul bëgg lu muy Cheikh Rafaal muy sëriñ Cheikh Demba Fall ñaan mu yàgg fi lool te wér ak mboolem ñu bokk Cheikh Rafaal li jaaral siyaar bi nag bu sëriñ Cheikh Jëmb ci sëriñ Cheikh Saliou Fall moom Cheikh Moudou Moustapha Fall ak sëriñ Assane Fall rakkam ak sëriñ Xalifa xombal mi nga xam ne moom doomi Cheikh Moudou Saafal lañu di siyaar sëriñ Mbàkke Fall nag baax a baax sa jëmm jaral na ma lu ne te jamono xat na lool waaye ànd na ma ak sëriñ Bassirou Diop di tele bi sëriñ Bassirou Fall alxuraan ànd ak sëriñ Ibrahima Doy di tele bi sëriñ Fallu Fall moom sa Sakkoor ñu bokk ci ñu sos liggéey ba foofee ca Italie sëñ Ablaye Dione nit suñ Mbacke Fall ne ñëw na fi mu mat nengo bis bi nga xam ne mooy defar fa Fall nag nga jàpp ci lool sama mag yu baax ja sëñ Cheikh naa Fall yal na ko yàlla doon leen fa mu nekk doon suñu wala di suñu xarit lool nuy ñaan xamante njabootam ndax suñu wala woon muy ku baax ku sell yàlla ko yàlla dooleel fa mu nekk mu jàppoon ci liggéey bi moom daan ko fekke mu suñu soxnaa Fall ñibbi àjjana yàlla dogal yow sëñ Mbacke Fall yàlla moom loola bis bi nga jàpp ci jàpp gu wóor su la neexoon def na sëti Cheikh Fall yi fay ñëw rek wóor laaj addee dem waaye bis bi day tuxu nga tuxal sa bis bi tukki ngir bisu Cheikh Fall boobu ma xam ne ko ñor na la tey jii bii ñëw waa Italie woon nañ la yoon yónni nu addiyee xeem nañ ko lool jox nu paas gasoil ni yaag Basiiru ak Ibrahima Ndoye ak kuma dem ànd leen di bis sëñ Mbàkke boobu yi ndax ñor nañu ndax ñun amul bisu budul bisu noonu amul kul Seera Faal ñaar fukki foor gi lan jàpp muy suñu bis amul benn bis budul ñaar fukki fan koor gi jàpp naa ne bis bu ñu defal Seera Faal tey bu gëri si ci àdduna xaw ma ko man Baara ndax génn guddi daañu ci fere 10 millions CFA suñu mbàkk la ñuy fukki millions CFA daañu ko fere génn guddi ngir jëmi Serigne Fall képp ci añ reer xëdd ak ndogu ñor ko mu ñor na mooy bis boobu lan am li muy doon noonu sa maam ñun dañoo jàpp ne suñu bis la nga jàppale nu ci loolu lan la fonke Fall sant nañ la gërëm nañ la waaye nii la mën a mel. ndax sëñ Moussa Fall bi ko fi Cheikh Fall bàyyi 1930 ba 1950 bi ñuy jox Cheikh Mortala Fall rakam ji baaja dégg naa daana seen ji baaja Cheikh mu rus naa ko seen ndax ayam di lekk rajo lu bari moo toogu fi lu yàgg sëñ Moussa Fall maa lekk ay sëñ Mortala Fall. Hmm. noo ngi jégalu kon. Hmm. kon. bis boobu nga xam ne daf laa ñor lool muy sa nga def ko sa bis tamit sa bisu maam nga moo def na ñëpp te jàpp ci bu wóor moo tax nit loo xel nu jàpp ci loo ngi lay sant di la ñaanal ci dara Sëñ Tuubaa bis bi nga defee Cheikh Fall mu gën a foo ci loo ci yaakaar rek nga dee loola noonu nag lu Cheikh Ibra Fall ndax Cheikh Ibra mos a làkk sëñ bi fenn te jël ko sëñ bi muusoon sëñ bi lu ma koy defee Cheikh Ibrahima dafa dégg Serigne Touba da ko dégg da dégg Serigne Touba ba sëñ bi bëgg rek Cheikh Ibrahima def ko dégg gum dégg ko Cheikh Fall rek moo waral Cheikh Rafal Moussa def dara sëñ Ibrahim noko noo ak sa rek la koy wax fofé ngeen nek sama ju baax Cheikh Moudou Fall Fall loo ngi koy sant duñ ko fàtte ndax fekk nañu fa ba tey Italie saa am ñëw naan sëñ baara ma ni faar muy ni la sëñ bëgg ñu defal ma def ko bu delsee wax yéen de li nga joxoon joxal naa ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa lu ko jox noppi naa yàqu sëñ mu daana sëñ baara ma ni faar xam nga luy muy li lañ ko bi li rek la wërsëg rek la seen mag ju baax jooju nga xam ne moo teg ci yoon wii ngi nekk ba suñu doon ko wàcc yàlla na yàgg noo ngi sant tey gërëm. koo gis mu toog rek kuy yëg di sentir maam Cheikh Ibrahima Fall la ba ba ñu ko tuddee mu ra mu laal ruuxam kon njabootam la ci ruux kon ñu ngi ziar ñi fi teew ñëpp Alaaji Góora nee na mi ngi. ziar bu baax sëriñ Mbàkke ndax sëriñ Mbàkke sëriñam la déjà waaye muy xaritam di soppeem di complice am ci lépp lu mu dugg nag sëñ Mbàkke taxawu ko fa li ñuy wax naan moo def lii moo def lii moo def lii nee na bu ma sañoon kenn du ni góoraa def nangam

mo xam ay xéewal la moo xam bâche yi moo xam chaise yi moo xam lu mu mën a doon lu mu mën a doon lu ne rek lu war a am ci bis bi moo koy yëkkati def ko parce que séq naag sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke defal na ko lu loolu te sëñ Mbàkke kenn amul fayam kon daal ci gàttal sëñ Mbàkke góore nee na mi ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax bu yonent bi toogatee bu yonent bi toogatee bu leen yëkkati seen baat mu jëm kaw Cheikh Ibra bi mu joxee boppam Serigne Touba ba génn dugg ci daara ji foofu la fekk ndongo yi di ko jàng laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi Cheikh Ibra ni leen waa gaañi nit boo ko yorelee bor boo yorelee nit bor mu faatu bor ba koo koy fay ñu ni ko xanaa doomam Cheikh ni leen aaya bii ku taxoon mu wàcc ñu ko xanaa Muhammad Rasulullah mu ne fi nekkal Muhammad Rasulullah ñu ne ko xanaa Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul Cheikh Ibrahima bis ni ki tey aaye bi jël leen ko moomale ko Serigne Touba. daal di taxaw na Serigne Touba na mu taxawee woon ni yonent bi yubajjilu kulli kullakal yawma ma gadin Cheikh Ibrahima noonu la taxawaat ni Serigne Touba yu kulli kullakal yawma ma xarin Serigne Touba Serigne Touba dana yonent bi sama lépp sa lépp lay magal ba yowmal xiyam Cheikh Ibrahima ni Serigne Touba ma fay la bor bi sama lépp man Cheikh sa lépp lay màggal ba yowmal xiyam comme que Serigne Touba nekk fi nag Cheikh Ibra néew fi njabootu Cheikh Ibra fi nag boobu nag dañ koy jël nag delloowaat njabootu Cheikh wasalaamaaleykum wa rahmatullah koo xam ne lam yor bët tegewu ci te kum ko waxul doo ko xam kooku buy dem bu gisee ku ko doy mu bàyyee ko yëfam bu gisul ku ko doy mu yóbbu yëfam jataay bi nag xame naa ci ne Cheikh Ibrahima la mu yoroon dara fi lépp a ngi fi ndax li ko joxe mooy li mbokk mi wax léegi nee na ànd siggal lislaam ñëpp a fi daje kon loolu màndarka ji ne loolu rek doonul yitte Cheikh liggéeyu sëñ Tuubaa boobu nga xam ne moom la mooy xitma bi moo ko ñoroon te xitma bi mooy avancé l'islam te moom rek la doon dox moom bi mu fi nekkee. ndax yonent bi bi mu fi nekkee bi muy dem yonent gi daf ko yóbbaale wu ko daf ko yóbbaale waaye Seexul Xadim bi muy dem xidma bi fi la ko bàyyi ci lañu nekk boobu ba léegi mu mel nii ma ne yonent bi bi ko yàlla yónnee bi muy dem yonent bi moo dem waaye yonent gi fi la ko bàyyi waaye yonent bi moom dem na Serigne Touba bi mu fi nekkee bi muy dem xaadimu rasul xaadimu rasul ci boppam xaadimul Moustapha moo dem waaye ma bi fi la ko bàyyi moom la ñu yor ba nëgën nii moom la mu am lu ma marqué nag ci sëriñ bi waaw dama gis mu def tashbihaat ay nurale barki démb yoo xam ne ña ma xamoon ñu def ko ci mag yi ñu kawe woon lañu ci biir tasawuf dama gis bërki démb mu jël benn xasida ci télévision bi ma gis mu indi maam Cheikh Ibra Fall ni mu ko tasbihaat yi mu ko nuróolee ak yonent yàlla Ibrahima def ci xasida boo xam ne fi ma koy seetaane ci télévision bi sama yaram ma ngi daw ma déglu ko ba mu yegg ma ne aha li yonent bi waxoon ndekete ak abbas gis naa ko tey yonent yàlla Muhammad dafa toog yonent ak Seydina abbas ba mu ne ko waaw abbas ne ko waaw sallallahu lan nga nu bàyyee mu ne ko taraktu fiikum ma in tamasaktum lan tadilu ba'di kitaabullahi wa sunnati alquran ne ko ak lan mu ne ko ak lan yonent bi ne tekk ba mu ne xanaa fa man yoxti yi la waxtaan ak dégg goo xam ne yàlla moo koy jox nit ah ilmu laduni ma ne nag nit bu ngeen bokkee dara séq ko te nga dégg ci mu am nga nga seetluwaat ko déglu ko dégg ci ak dégg goo xam ne ilmu laduni day mat di bàyyi xel bàyyi naa la xel bu baax ci li ma dégg nga wax waaye loolu it maa ngi ci ndokkeel Cheikh Ibrahima Fall di ci ndokkeel Serigne Cheikh Jëmbu Fall ak délégation bi mu àndal di la wax ne la tasbiyaat boobu benn nit nuyoo leen na ko Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Serigne Touba day xool sëñ Modou Moustapha ba yàgg rek mu ne ko wal Moustapha in shabahat afaaluhu afaala walidihi fa laysa bi zalimi am man mu koy net woo benn xalal bu ko romb mu woo ko di ko wax mu ne ko ah moom bëggoo xasida ji mu ne ko xasida xaftaan la kooko natt ci moom mu mën ci dem jàkka ji rek moo ko moom kon xasida gi sa nattukaay la asalaamaaleykum wa kii nga dara jaaleel bis bi mu ne ko kii nga dara jaaleel bis bi di ko sant muy Cheikh Modou Moustapha muy Cheikh Modou Moustapha jaral na ma coono bu ëpp jaral na ma coono bu ëpp toogaay bii ndax lii ma ci sonn yëguma ko ndax lii ma ci sonn yëguma ko de ndegam sëriñ bi mee di sunu lépp ndegam sëriñ bi mee di sunu lépp moo wax ni moo wax ni su amoon manug ñëw su amoon manug ñëw moom sëñ Cheikh jëm day fekk day fekk si bisu Cheikh Modou Moustapha bii sëñ Mbàkke di def nga xam ne moom lu mu am day dafa wax ne lu mu am dafa wax ne lu mu ko ko may sëñ Modou Moustapha moo ko ko may ñaari garaat yi mu ràngoo ñaari garaat yi mu ràngoo bàyyam ak ko may bàyyam ak ko kon fu mu dégg bisam. kon dégg bisam baayam. bu sañoon. bu sañoon. teewi fa. loolu mooy sunu teew maag sëñ. loolu teewam moog sëñ Assane mii. sëriñ bii di sëriñ Mbacke nag. ah sëriñ bii di sëñ Mbacke nag. daanaka. daanaka. li ñu ci seede. li ñu ci seede. ci dëkkandoo yi. ci yi. doy na sëkk. doy na sëkk. ndax moom lim fi nekkee. ndax moom lim fi nekkee. sunu xol sedd na ci guy. sunu xol na ci guy. sunu kilifa nun ñëpp. sunu kilifa nun ñëpp. di sëñ Cheikh Jëmb. di sëñ Cheikh Jëmb. xolam sedd na ci moom guy. xolam sedd na ci moom guy. ndax moom nekkiinu sëñ Modou mu wa. ndax moom nekkiinu sëñ Modou Moustapha wa. wa mu nekkee woon fii. wa mu nekkee woon fii. jubóog ñépp jubóog ñëpp. ca loola la ne. ca loola la sëñ Mbàkke ne. ba gis nga fi ñi fi ñëw ñëpp. ba gis nga fi ñi fi ñëw ñëpp. bokkunu ay tariixa. bokkunu ay tariixa. waaye fexe na ba. waaye fexe na ba. na baayam amee woon. na baayam amee woon. seeni baay. seeni baay. mu amee leen ni. mu amee leen ni moom itam. moo waral ñu ñëw fi. moo waral ñu ñëw fi. di seere seere yu rëy yi di yu rëy yi. te bu lépp di dëgg. te lépp nag di dëgg. nu di ko dégg. nu di ko dégg. sunu xol sedd ci. sunu xol sedd ci. kon nun daanaka. kon nun daanaka. amatuñu lu ñuy wax. amatuñu xanaa kay. xanaa kay. di ko ñaanal. di ko ñaanal. ci barkeb sëñ Modou Moustapha ci barkeb sëñ Modou Moustapha. lii muy def. mu yàgg koo def. yàlla na ko yàgg def. li mu ci yéene it. li ci yéene it. na ko ko bàyyam. yàlla na la ko sa bàyyi defal. te nu bokk ko ak moom te nu bokk ko ak yow. ak mboolem ku fi teew ak mboolem ku fi teew ak ku ci yëngu nag. ak ku bëgg a ñëw. ak ku bëgg a ñëw. te amoo man manu mën a ñëw te nga mën a ñëw. yàlla na la ci yàlla boole. yàlla na la yàlla boole ci loolu yiw woowu ci yiw woowu. yiw woowu nga xam ni. nga xam ni. moom la ciy jëlee. moom la ciy jëlee. bokk ko ak moom. bokk ak moom. sëriñ mi. sëriñ bi. day xale boo xam ni. day xale boo xam ni. dafa yaru. dafa yaru. li ni li koy mag mag. li koy mag mag mag. te magi wuñu ko noona sax. te magi wuñu ko noona sax. ndax am na yeneen i mag. ndax am na yeneen i mag. yu dox su digganteek moom. yu dox suñu digganteeg moom. waaye xàmmeewu ma. waaye xàmmeewu ma. ak sëñ Jëmb bee. ak sëñ Cheikh Jëmb mee toog. xàmmeewul sërif mi. xàmmeewul sërif mi. ak sëñ Cheikh Jëmb bee. ak sëñ Cheikh kon melokaanam bi. kon melokaanam bi. noonu rek rek mooy melokaanu. kër maamam noonu rek mooy melokaanu maamam. mooy melokaanu kër maamam. mooy melokaanu kër maamam. doon taalibe. doon taalibe. nangoo toppee. nangoo toppee. nangu ñu yilif la. nangu ñu yilif la. te def na loolu. te def na loolu. kon nu noo ngi koy ñaanal. kon nu noo ngi koy yàlla na yàlla guddal fanam. na yàlla guddal fanam ku ne amin yàlla nga ca bokk. te may ko wér. te may ko ak wér. ba yéene bii. ba yéene bii. yàlla àggale ko. yàlla àggale ko. loolu laa noon. loolu la noon. dama noon sëñ Assane sax na jël. dañu moon man de sëñ sax laa bàyyee kàddu gi. waaye sama xol. waaye xolam mënatumaa may. mënatu koo may. ma ñàkk a wax. mu ñàkk a wax. ci melokaanu Serigne mii ci melokaanu Serigne Mbacke mii. loolu nag ñoo ngi koy seedeel. nee na loolu nag ñoo ngi koy seedeel. mboolem dëkkandoo yi. mboolem dëkkandoo yi. ak am ji jàmm yi ak am di jàmm lii. ñu ngi leen di xamal ni. ñu ngi leen di xamal ni. Serigne Mbacke mii. Serigne Mbacke mii. ñi ko yilif. ñi ko yilif. gërëm nañ ko. gërëm nañu ko. allahumma salli ala sayyidina. allahumma salli ala sayyidina. la ilaha illa allah fal Cheikh Ibra Fall la ilaha illallah danu la faal xamu la faal waaye Cheikh Ibra doo seeni maraam danu la faal xamu la waaye Cheikh Ibra doo seeni maraam lu la ilaha illallah faal rabbana la ilaha illallah am di faal seex mu saaw daaru bayra lii lépp am di faal seex mu saaw daaru bayra lii lépp ya waaw seexi mbàkke seex bàyyi góoru faal ba ca seex Moodu Ameew seexi mbàkke seex bàyyi góoru faal ba ca seex Moodu Ameew ndimbaloy faal yërmande faal seexi ra faal doole dir faal abdite li may njëkk a def mooy jéggulu sëriñ bi. sëriñ Mbacke nee na. li muy njëkk a def mooy jéggulu sëriñ bi. kon sëriñ bi ñoo ngi lay euh, jéggulu bu baax a baax. kon sëriñ Saliou sëriñ Mbacke nee na mi ngi lay jéggulu bu baax baax. wax ji sax moom du bari. nee na wax ji sax day du bari. jombul bu fekkee am na lu ma war a wax. jombul day bu fekkee am na lu mu war a wax. gannaaw bu nuyoo mbooloo mi ñëpp. gannaaw bu nuyoo mbooloo mépp. lu ma waroon wax rek wax nañ ko. نحن لوم ورانا واخ رك واخ نانكو بوح بتاخنا لي سيرن بي واخ دوينا لي سيرن بي واخ دوينا ndax بي بيغنا سيرن بي بيغنا تم بكتم رك لا دون لون بغول تم نون داي مبكتم سيرن بي رك لا دون وود كون لين دون وود امنان كو كون لين دون وود امنان كو li ci des nag. li ci des nag. mooy mbégteem ñi nga xam ni. mooy mbégam ñi nga xam ni. ñoom la ñu seqal jataay bi. moom la ñu seqal jataay bi. di ay taalibe di ay taalibe. di ay mbokk di ay mbokk. di ay wëllëre di ay wëllëre. la ilaha illallah fal Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah fal مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل مصطفى لا إله إلا الله أمري فارس مصطفى مصطفى يا إله بالألوم يا رب شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم Cheikh Ibra Faal lampum ngëneel bi Cheikh Bamba taal leeral nga réew mépp yaay kamaal yal na nga doole berexe bam demee Mbàkke Bawal def ni waa kër gi baleen wal naay soq tay wal boo léeg liggéey di ko joxe lu Cheikh Bamba mu daldi naaw fuurim juruy ja sant saaw naa ko da ngay dettu ginnaaw jàngil murit dum pexe mboole murit yëpp di ko soow Cheikh Ibra Faal mboole murit yëpp di ko soow Cheikh Ibra mel ni dof bu mat di far ñëpp ni siiw melam ba far di ko doxé mu jiitu ba far amul maram far gani mbokk gani jaara ma Cheikh Ibra ma Cheikh Ibra ma Cheikh Ibra ma Cheikh Ibra na ñepp def ni nu ma mi Serigne Mbacke Fall jaaraama Cheikh Ibrahima Fall wàcc nga waccale ak texe yow musulaa jiyog ndigal naka nga jog tàggale no mbugal ko aw sa bor duñ ko mbugal ngir mi ya tax ñi texe Cheikh Ibra yaa njëkk sa sa xol ku sopp a Ibrahima ay junni daal la daa joxe joxe ne addi yey gëleem yu safi nguur du safi koom soldat sa yaa joxe woon sa doom Cheikh Fallou Fall am na texe sa ndaw da daa dem ba Gabon di yóbbu ay saako yu rog di war ca gaale yori bong doo denc dara ba muy maxe moo tax nga mel ni ak saxaar ku nara dem dina fa jaar kuy ñaani paas na seeti gaar bul nekk ba naa ndaka pexe ndegam da nga xeebir sa paas kuy oto yaa nga fa gaaraas seetal nag jiite xeex dagam danga am looy joxe Serigne Mbacke mooy sunu mbër Serigne Mbacke mooy sunu mbër Serigne Mbacke mooy sunu mbër ku mu jaral jugal jaayoo Serigne Mbacke mooy sunu mbër Serigne Mbacke mooy sunu mbër Serigne Mbacke mooy sunu mbër magal leen Serigne Mbacke magal leen Serigne Mbacke magal leen Serigne Mbacke Serigne Mbacke mooy sunu mbër li mu nekk dugg ñi me bor daa amul boyam na dadoor kooku waaye ko Kamañoor <laughs> sëriñ baa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen masawu coono yi nag te di leen masawu coono yi coono yi bari na sëriñ bi mu ni coono yi bari na mm, ci guddi gi ci guddi gi ak ci suba gi ak ci suba gi ci bëccëg bi ak bi ak li ko jiit lépp ak li ko jiitu lépp waaye nag sëriñ bi mu ni waaye nag kuy sonn kuy sonn te la ngay sonne jara sonn war ngaa sant yàlla. sant yàlla. ndax coono moom mënta ñàkk. ñàkk. boo sonnewul ci lu neex yàlla itam. boo sonnewul ci lu neex yàlla itam. rek. sonne nag li ngeen sonne. yéen nag naa jàpp ne lu neex yàlla la. lu neex yàlla la. ndax. da ngeen a sonn ngir sëriñ bi. ndax da ngeen sonn ci sëriñ bi. bëgg sëriñ bi. fonk sëriñ bi. fonk sëriñ bi. yaakaar sëriñ bi. moo leen tax a sonn. sëriñ bi nee na loolu moo leen tax a sonn. kon nag. sëriñ bi mu ni kon nag. loolu lu neex yàlla la. loolu de moom lu neex yàlla la. ndax sëriñ bi. sëriñ bi mu ni ndax sëriñ bi. nitu yàlla la. nitu yàlla la. kon kon. yàlla nañu yàlla dimbali. sëriñ bi mu ni kon yàlla dimbali amiin. ba dinu teg ci ba dinu tegtal. ba dinu fu ñuy jaar. fu ñuy jaar. ba ko ñaane ba bu ñu ko ñaanee. mu yërëm nu. mu yërëm nu. yéen na li muy joxe. yéen na li muy joxe. faj suñuy aaju. am nay béréb yoo xam ni itam. sëriñ bi mu ni am nay béréb yoo xam ni itam. ñaane fa. ñaane fa. mën naa dolli yaakaar. mën naa dolli yaakaar. bërëb bii ñu ne sëriñ buub ni bërëb bii ñu nekk moom daanaka mënee su ko tudde kër nee na moom de daanaka mënee su ko tudde kër waaye bërëb la boo xam ne waaye bërëb la boo xam ne mënees naa jàpp ne bërëb bu sell la mënees naa jàpp ne ci bërëb yu sell yi la bokk mënees naa jàpp ne barab bu bu bu bu bu bu bu ñu mën a yaakaare la waaye sëriñ bi nee na mën nañoo jàpp ni barab bu ñu mën a yaakaare la kon nag sëriñ bi nee kon nag nan rafet njort rek nañu rafet njort te gën a góorgóorlu rek. te gën a góorgóorlu. te bañ a nag. te bañ mooy. sëriñ bi nee na naagu moo di. nga jëf-jëf. nga jëf-jëf. fonk ko. fonk jëf-jëf. naw ko. naw ko. ba defee ni. ba defee ni. waru caa tegaat leneen lu baax. waru caa tegaat dara. loolu yàlla na ci yàlla musal. loolu na yàlla ci yàlla musal. naagu baaxul. naagu baaxul. nit nag la mu def ba am ko. sëriñ bi nee nit nag la mu def ba am ci coono bu mu ca def ci coono bu mu ca def ak yitte ak yitte te yalla du ko may carton te yalla du ko may carton war naa mën a jëfaat lu tol noonu war naa mën a jëfaat lu tol yëpp jëfoon ndax xam nga lu baax moom sëriñ bi nee xam nga lu baax moom moom da dul doy nag moom de da dul doy ndax boo bëggee baax li fii sëriñ bi nee na boo bëggee baax la fii. baax la yomal xiyaam. baax la yomal xiyaam xam nga ni. loolu liggéey bu rëy. loolu liggéey bu rëy. moo koy tax am. moo koy tax am. farlu. farlu. am jom. am jom. jub. jub. nangoo def lu baax. nangoo def lu baax. nangoo dimbalante. nangoo dimbalante. kon yàlla na yàlla dimbali. yàlla na ci yàlla dimbali. Eh, du ma guddal wax ji. sëriñ bi nee wax ji du ma guddal. ndax. ndax dañoo sonn ay fan. ay nuy amal nuy ko. ba xam ko. nañ ko kon nag. sëriñ daanaka wax ji jarul su guddal. daanaka wax kay. fi mu kay. li ñu war a def mooy. li ñu war mooy. ànd sant yàlla. ànd sant yàlla alhamdulilah. te dem dallu ji. te dem dallu ji. waajaat. waajaat. li tàmbalee tey nuy waaj. nuyuwaat. ba fekk buñ buñ ca àggatee. ba fekk buñ ca àggatee. nu mu ren rek. nu mu mel ren. mu raw ko bu déwénee. bu mu raw ko. amiin yàlla mën na ko. yàlla mën na ko. ñoo ngi sant ñëpp nag. sëñ sant ñëpp. Euh, kilifa yi. di sant kilifa ak ñi jàpp ci bis bi. ñi jàpp ci bis di sant taalibe yi. di sant taalibe yi. di sant euh, xarit di sant xarit yi. di sant euh, dëkk bi. di sant dëkk bi. di sant télévision yi. di sant waa télévision bi taxaw nii. di sant euh, képp koo xam ne rek. di sant képp koo xam ne nii. am na loo def. am nga loo def. mu néew wala mu bari. mu néew wala mu bari. ngir bis bi. ngir mu jëm ci bis bi. ba bis bi mu àgg fi mu àgg. ba bis bi àgg fi mu àgg. ba na am ci liñ ci. ci loolu. xam ne gée dugg nañ ci. xam ni dugg nañ ci. ak alham bismillahi rahmaani rahiim. ak bismillahi rahmaani rahiim. waaye mën nañu wax itam ni. waaye sëriñ bi nee na mën nañoo wax itam ni. génn nañ ci. génn nañ ci. ak alhamdulilah rabbil alamin. ak alhamdulilahi rabbil alamin. loolu moom ñëpp seede nañ ko. sëriñ bi ne loolu moom ñëpp seede nañ ko. ñëpp xam nañ ni. ñëpp xam nañu ni. ni mu meloon ni mu meloon daaw. ni mel ren ko dàq. ni mel ñëpp seet nañ ko. loolu ñëpp seet ñi fi ñëw xam nañ ko. ñi fi ñëw kenn ku nekk itam. kenn ku nekk itam. yëg nga ko ci sa bopp. yëg nga sa bopp. kon day mel ni. sëriñ bi nee kon day mel ni. kenn ku ne. kenn ku ne. la nga defoon daaw. la nga defoon daaw. def nga lu ko ëpp ren. def nga lu ko ëpp ren. ndax def-def yi. sëriñ bi nee na ndax def-def yi. jëf yi. jëf yi moom lañu dajale. moom la dajale. moo tax. moo tax. lii mën na taxaw. lii mën a taxaw mu mel nii. waaw ci ci ci ci ci lépp rek. ci lépp rek. leen ndokkeel. kon sëriñ maa ngi leen di ndokkeel. di leen gërëm. te di leen gërëm. la ilaha illallah